alaykum beaucoup internet Saint-Louis TV assalamu alaikum euh, Yen ndar yi euh, tey dañ ñëwoon fi di ci dañ émission focus sur di dalal ki nga xamanteni moy ababakar Gueye euh, ancien responsable socialiste nek aussi ancien coordinateur du parti LDR yessal nek actuellement président du mouvement Saint-Louis Debout

Euh, nek fi nekone euh, euh, tel dugg ci politique tel dugg ci politique parce que ñi ma yar ci politique moy ku mel tidiane ci le ku mel ne Feu Birahim Fall de ku mel Abdourahim Agne donc ñu tel dugg ci politique ñu jang nekkoon parti socialiste ba muy ba muy nekk parti socialiste quoi nga xamni le sens amoon sens politique amoon sens quoi dafa doon am ay tendance interne yo xamni am am idéologie du parti am doctrine du parti am école du parti ñu lay jàngal l'art de communiquer la rhétorique la parade ñu lay jangal noy politique xam ne da nga daan am engagement ci parce que c'est pas évident un jeune dugg par chasse au pouvoir mais da nga fa par conviction dugg fa ñu lay jangal ay comité ay section ay coordination nga dem nga xam tous les mécanismes yi nga xam ne tourner autour de la politique mais na léegi les da ngay gis koo xam ne da nga yow ñu responsable politique la yoo xam dougou pas ci dugg par pour ñoom ay raccourci la yoo xam ni euh, amatul parti du Sénégal je crois que foofu dinañ fa ñëw euh, juste dama bëgg xam tey euh, Babacar depuis bi nga dalee def politique yàgg na Euh, yaa ngi koy wax si say kàddu depuis ñoom Tidiane si la ñoom Cheikh Yérim Agne mais la moo tax euh, tey jii nii explosé woo la moo tax dégguñu Babacar ci politique fii à Saint-Louis. waaw xam nga politique Mitterrand dafa naa wax ni monter en politique euh, c'est grimper en horizontal xam nga politique dafa am ñoo xam ni daf jaral lu nekk pour ñu yegg fa ñu jëm mooy lèche cul lèche bodd yi bare na ay yenn activistes yoo xam ne ay raccourcis nañuy wut am na jeunes yoo xam ne lu ne sañ nañ ko pour jég responsable yi amatul idéologie ba nga xam ni Les euh, fondamentaux parti politique moo xewi boo Donc parti politique dafa dis xewi na tu vois en France par exemple il y a le li président président France Macron la France en marche et idéologie ay coalition yu mag du forte Allemagne commence woon parce qu'ils avaient vu ça en Allemagne ils avaient vu ça en Autriche tu vois un jeune qui c'est le c'est le c'est le euh, c'est lui qui gère le pays L'idéologie idéologie a parce que parti politique mi à commencé xewi euh, depuis l'avènement du mur de Berlin am les grands blocs dañ ko Il toj illusion yi ñëw euh, les socialistes en France de nous woon des soit mutation politique parce que chaque 10 ans dafay am une mutation boo xam dafay am ci politique science politique mais Sénégal ñun on fait tout sauf de la politique parce que politique ce euh, li li ko tax jóg développer la la cité la commune intérêt commun mais fii amu fi fii ku nekk da nga wut pexe ci génne. mais yo aussi euh, suñu déggee da nga jóge PS ñëw LDR kon ce qui veut dire que ni ñaari idéologie politique yu bokkul moom nga da nga def da nga transhumé. Non, transhumé, moi. De, PS à LDR. Mais c'était juste dans l'opposition. Dans, dans que tu que transhumé. Moi, j'aurais beaucoup aimé, comme Abdel Andoua, faire du tourisme politique. Parce que quand tu fais du tourisme, tu découvres d'autres pays. Non, transhumance, là, comme tu Parce que, vous voyez, les socialistes avec le parti qui est libéral, nous sommes a Il y a le libéralisme social, il y a le libéralisme capitaliste, il y a des patchs. Mais ce que je veux dire, fekkoon na ma jógee PS parce que PS bi ma ko doon xeex il y avait trop de clans ben way la bo xam moy moo parti bi euh, le feu il a beaucoup de mérite d'avoir soutenu le parti té que de 2000 à 2012 xeex ablaye wad maintenir parti mais bi Macky Sall jëlee nguur gi parti bi dafa compliqué c'est-à-dire que parti euh amul mérite ñi mujj ñëw ñoo gën a cëru que ñi fi yàggoon ay cas d'exemple y a beaucoup de cas d'exemple yoo mën a wax Saint-Louis yoo xam ni dañu ñëw imposé wu. Tanor am clam ñi am clam ñu pousse leen moy mooy mooy implosion partielle tu vois Khalifa Sall am problème bi moy lool parce qu'il y' a trop de clans dans le parti ce qui fait que ni man gëmatuma ko won Modou Diagne Fada qui était un ami mom moom woon ni man damay damay jóge PDS parce que euh, parti ils sont otages de leurs dirigeants parce que tout simplement il m'avait expliqué que ni maître de vouloir juste mettre son fils ñu tok ñu tok ñu tok wax mais man suma don doon transhumé damay bi ma baye dama parce qu'il est est parti rejoindre Macky Sall pour jàppale en pleine campagne là, ni que man du ma ak Macky Sall ma bàyyi ko ci pleine campagne mënoon naa am père mais dama APR. bi ngay bi ngay ñew parti réew mi man jour bi lay dal man maa ngi fa xam nga koku mënoon naa dem. mu mu lu am doole nak mu melni ben politicien bu bu 2000 personnes nek ci gannaaw mom le gars indi. xam nga politique ya ya y' a la notion de science politique y' a des politiciens stratèges ñi nga xam dañuy xalat ñun suñu genre bokku nañ ci Ben, stratège politique mën na 1000 gars am ñoo ils savent faire le terrain am ñoo ils théorisent les choses c'est comme les les les trotskistes là les communistes ils dangereux Mahmoud parce que c'est un trotskiste il sait théoriser les choses il sait mettre en place des des projets politiques des projets sociaux. mais politique ku y ak sa rôle am qui ñoo une mobilisation qui def qui tàccu lay def def les salles, besoin ku nekk ak li lay doyee ci politique. loolu école du parti pour former les gens parce que nous, nous ñu jàngaloon parti choix mooy communiquer on sait communiquer on on sait bien le faire parce qu'on a été bien formés ku Abdoulaye Agne ken mënu ko jangal rhétorique moy jangalé rhétorique ku mel na ku il a formé beaucoup de gens ku mel na Moussa Niasse temps temps yi mu nekkee vous savez on parlait de la jeunesse socialiste mais léegi amatul ken mo ci xawoon sauver moy Khalifa Sall tu vois maintenant limi muy dund. tay euh, bu ñu fofu dañuy dugg directement si ce mouvement bi muy Saint-Louis debout mais lima jaxal moy Saint-Louis debout est-ce qu'il y a dix personnes derrière toi. mais Saint-Louis debout c'est une dynamique xam nga euh, la. Euh, les mouvements. Euh, non bu fi teg xel bul wax dynamique mouvement c'est-à-dire mouvement bu ñu koy wax mbooloo moo tax ñuy wax mouvement mais mouvement c'est louis debout gisuñu fa 10 personnes. mais déglu ma xam nga le mécanisme des partis politiques di fay ay cars di woo gars yi ñuy ñëw di jox gars yi deux mille yemul debout c'est un mouvement citoyen qui veut sauvegarder et défendre les intérêts des Saint-Louisiens. mais lan ngeen defagul. non mais bari na bokk na ci ay marché yu bari jàpp nañ na fi jàpp nañ nu fii ak ñoom saako bi ndeex affaire wu pare na jàpp nañu

tay mouvement Saint-Louis debout ban taxawaay la am ci euh, élection municipale yi di mais xam nga xam nga xam nga gas il faut que nous redéfinir le rôle qu'est-ce qu'un maire qu'est-ce qu'une municipalité qu'est-ce qu'un conseil municipal moi c'est un rôle il faut nous définir que nit parce que la majeure partie des gens qui sont dans les conseils municipaux ils sont inclus jànguñu. mais nanga meun quand ko xamni jangul fale on est au 21e siècle on xamni jangul war a gérer cette cité bu fekkee dana yaakaar ni maire yi maire yi mi ngi yam ci Talam, Balé, dans les pays dans les pays développés on parle de la nouvelle aire urbaine E accent RE e, la nouvelle aire urbaine c'est-à-dire que nous ngay créer Saint-Louis une ville concurrente une commune par rapport à Louga Louga nan la meun concurrencer lan moy spécificité Saint-Louis Saint-Louis c'est un pays c'est une ville bo xamni commune il y a le tourisme il y a la pêche c'est une ville étudiante, il y a beaucoup de lycées il y a beaucoup d'écoles de formation il y a beaucoup de banques mais la valeur ajoutée là lan la war indil Ndar taxaw tu vois un maire boo xam mon que c'est moi décidé avec la commission de du conseil municipal parce qu'ils sont aussi complices parce qu'ils ont été élus au même titre que le maire le maire c'est un bureau qu'il a élu pour mu maire ils sont aussi responsables que le maire yow li ngay y yow li ngay casse j'ai beaucoup de respect pour toi parce que li ngay c'est légitime moo tax kenn mënu la attaquer si li ngay kaas yow da ngay jël temps teg ko fenn foo ne gars yi duñu la mën attaquer parce que li ngay wax dafa leer le maire Mansour Faye mais du chaque jour le tooñ y a équipe municipale y a des adjoints au maire yoo xam ay carriéristes pour ñoom profession la am ñoo xam na leen di fay foofu dañuy jox ay bons d'essence privilège ci ñoom par exemple dama lay wax benn cas d'exemple comment tu peux nommer ben directeur de cabinet boo xam ne amul expérience amul dara nga nommé mais yooyu Abdoulaye Wade moo tooñ parce que moo ñëw ci mairie créé ay directeur de njëkk maire xam lan la woon secteur municipal la amoon ak daaf mun na état bi daan fay ak le maire Abdoulaye Wade moo ñëw toute l'administration créer ay chef de cabinet ay directeur de cabinet yooyu yëpp dafay créé yeneen charge supplémenter parce que maire yi par exemple nga mën comprendre une ville comme Saint-Louis culture bi am fi un ay mouvement de jeunes am fi association am fi amul une subvention forte pour la mettre dañuy def détournement d'objectif jël fi subvention bi ko feneen nga les jeunes sont là en rade di tourner teli y a tout à refaire à Saint-Louis mais le maire le le maire n'est pas responsable c'est l'équipe municipale qui est responsable ok kon euh, durant 5 ans, le maire Mazou Faye a fait ici à Saint-Louis. Il a fait une conclusion, qu'est-ce qu'on a conclu durant les 5 ans Mais Mazou Faye, constat il a fait un constat. Il a respecté le Saint-Louis. Il a fait respecter. C'est ce qu'on a fait. Comment, Mais parce que le Saint-Louis, il a fait un constat. Il n'y a pas de permanent d'écart pour 5 000, 2 000, 3 000 francs. Mais avant que tu aies une dignité, tu préserver. dignité boobu moo ñàkk ndar ndar dana lay wax ne la way ay wax yu xeew yooyu ay ancienne capitale ak sëñ Tuubaa jaar na feeg Maodo jaar na fi dafa jaaree te amul nu benn njëriñ ban ban njëriñ la am dafay jaaree te jëlundu fi ñoom ay jikko sëñ Tuubaa jikko lay incarné Maodo jikko lay lay véhiculé kon tey lan nga mën a wax tey ci ci maire bi tey mais il a essayé il a il a vu il am na ay limites xam nga dafa am lu ñuy wax le phénomène de Peters phénomène de Peters mooy Gas El Salvador bi nga xam ne rappeur la blogueur la la soo ko joxoon ministre du ko doxal

Mais le, le, le, le, la, la mouvance, ce qu'on appelle la mouvance en politique, ce qu'on appelle la mouvance. Il y a des gens, euh, ce sont des suiveurs, te non lay dundee Jeune top topp Mansour Faye ban jeune mo am valeur pour yow ci Saint-Louis am lu muy incarner. activistes yi topp Mansour Faye mu leen jox ñuy jéem a ñuy jéem déstabiliser ay duma wax sen tour parce que intéressé nu ma ñaata activistes ñoo nek Saint-Louis di encaisser gars yi di foog ni mën nañu mën nañ la dara mën nañ ma dara mais parce que

jàppale parce que moom campagne ci élection yi mu man may goro président man may frère Marième Faye lepp lépp dana ma yom pour mën defar ndar bayina na ba campagne am di waaj ñëw mu commencé di décapiter dëkk bi euh, sonal nit ñi di di dox parce que ay projet loolu la bëgg politiser parce que xam nga municipalité da ngay am un projet politique un projet politique un projet politique de politique té ndar fi ñi am endurance xam nga nga tax man euh, ce que ce que man on tout on peut tout me reprocher sauf de ne pas avoir une endurance politique parce que peut politique sama métier a un métier mais il y a des jeunes qui ont raccourci le pour ñu dem ont fait da nga avons un doo amee mais yow un jeune de Cogé lan la ban réplique que mën a ci ci politique.

Parce que Saint-Louis est une ville carrefour dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est-à-dire que si on est maire de dès vous les respecter. Mais l'offre politique qui est proposée euh, dans le cadre de la coopération décentralisée, il y a qu'à créer. Saint-Louis, Mono est une ville Carrefour qui a été colonisée par les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Français. C'est un problème pour Amkhalis. C'est parce que nous avons nan nga mën jëlee ay ñoo xam dañ lay topp parce que euh, ñii ñoo lay régler lii ñu lay ñu lay régler lii ñii yooyu mais politique concept nawle la àdduna li ko régime mooy nawle concept nawle yow ki ngay si liggéeyante dafa nekk sa nawle mais du fekkee du fekkee yow rapport d' intérêt moo nekk ci te loolu moo am gars yi jeunes yi dafa tun politique par conviction dafa tun politique par idéologie raccourci la nga def. loolu moom c' est clair que ni léegi jeunes yi. mais premier euh, janvier bi ngay wax. Mhm. kooku benn affaire la parce que xam nga xam nga maire yi. Moi, je connais un maire qui était à Noël-le-Grand. Le maire, il passait 18 heures de temps dans sa commune à Noël-le-Grand pour régler des problèmes. Régler des problèmes. Tu n'avais pas besoin de voir, le chef de cabinet, tu n'avais pas besoin de voir l'agent de voie. Tu le vois dans quel endroit il jóg régler problème mais nit ñi moom là lay wax le ni la le xam maire qu'est-ce les prérogatives du maire maire faut le war Il faut le war commencé conseil municipal le le rôle mais le lay wat dañ lay conseil municipal sax je lu eh, parce, que tout simplement, il faut réformer les courses locales dans l'acte 3. Ils l'ont fait pour des problèmes politiques, gagner l'élection, gagner un maire maire, On ont un budget. Parce que nous comprendre, c'est le découpement de 2 milliards. 2 milliards, là, je me 2 milliards, les, un tiers, c'est le budget de fonctionnement. Il y a les fonds de détention, il y a tout. Il y a l'hôpital, il y a l'éclairage public, il y a tout. Mais, même si nous avons les Chaque jour, nous avons jox waa ji benn ticket mu dagg alors que ni mënoon nga proposer waa ji benn package boo xam ne annuellement da nga wax ni que au lieu que ngay fay at bi su juuti juuti vingt mille je fais un package de quinze mille francs mais quinze francs yooyu leer na la yow daa ko recouvrer daa ko téye ñii yor ñi di dàqanteeg maire yi ñii di dàqanteel kii ngay perte essence di xëcc di xëcc njaay yi alors que ni maire maire yi seen dafa war dépasser marché war nga am centre commerciaux yoo xam ne mais kooku ça demande des montages financiers parce que maire du affaire dof le management des collectivités locales da nga koy jàng comme école yo xam nga da ngay da ngay ménager même soko nga jël nga jël de cabinet wala nga jël secteur général bu ay mais nga jël ay c'est une mère de mais il n'a qu'à créer sa mère à la permanence c'est beaucoup plus adéquat c' pas la mairie de Saint-Louis. ok <laughs> je crois que am na importance waxtaan bi sax euh, bu fekkone temps bi permettre nañ ko dinañ ci gëna xouss parce que di waxtana yow ci affaire bu melni ci mairie bi dafa am solo parce que comprendre nga lu bari ci ni mairie di doxé te aussi tamit jaar nga si euh, euh, école de parti xam nga lu bari ci affaire yi. Euh juste tey jii suñu dernier point dañuy wax ci hôpital bi ñu gis ay sorties yi nga xamanteni defon nga ko euh nga nga demandé à ce que ñu auditer hôpital bi aussi tamit ñu gis ni nga dal ACP bi ak conseil départemental bu Saint-Louis bi tey jii nii lan nga ciy mun waxaat tey mais am nga gas am nga gas da nga un million Et ma un million yi fileeg six mois war naa ñëw xool sama xaalis fu mu dugg rawatina mu euh, dernier public la notion de dernier public la notion de service c'est-à-dire que xam nga dafa am yu wax en droit des choses irréfragables loo xam c'est des acquis yoo xam ne état mooy doxe noonu mais pour quelle raison Macky Sall gouvernement ñëw ni loolu doom encore notre maire gis na ne mu ne du wuy ji IGE du wuy code de contrôle c'est-à-dire qu'on on est dans un état d'exception état d'exception la dictature dictature c'est tuer démocratie démocratie démocratie sénégalais li non non non américains disent struggle for democracy ». c'est un combat perpétuel et permanent. et permanent Si vous affaire démocratie da vous avez acquis les États-Unis les noirs, noir duñ dugg ci une femme ñu ko dugg ñu ni ñuy démocratie processus démocratie Sénégal pour ñoom moy folli kii fal kii loolu lu ndaw la système bu ndaw la ci démocratie les élections c'est un système minime dans la la marche démocratique hôpital Saint-Louis bo nga wax non mais nan nga mën xolé man man man man ñun doomu ndar bu baax tu es né à l'hôpital mais mécanisme bi ma gis hôpital man dem dama romb hôpital devant hôpital j'étais ahuri parce que man damay dégg ngay wax ngay filmer may tok ba dem dama dam foofu non xol hôpital bi un directeur bo xamni ne il se croit journaliste di wax rek di mbel-mbel yooyu ken kenn laaju ko loolu xam lan ko laaj. Mhm. mooy len la denk nan nga ko doxale pourquoi hôpital amul plateau technique pourquoi radio laser amu fa. pourquoi le personnel le personnel les syndicats tiennent le tiennent en otage pourquoi xais bu dugul hôpital ñom ñokay lek c'est quoi le problème de l'hôpital léegi problème bi directeur bi la wala wala ACP bi la wala conseil d'administration. c'est tout un système parce que xam nga gas Sénégal ba Abdou Diouf fi mu fiy jógee PS amon na ay lois. Ablaye bi mu ñëwee Yak, amna yu mu mais amna l'État, euh, l'état la république c'est une continuité mhm. il faut réformer les choses la réforme nak dafa metti réformer ñëw état gis dañ réformer lolu mo ñu indil problème troisième mandat bi Son réformer won profondément parce que Sénégal n'oublie pas que 70 des gens sont incultes jangum jang ak nante bokul mhm. jang ak nante mo ngay gis mooy tax ngay gis télévision ku jug ni analyse politique nga taxaw di wax yo xamni dañ leen di fay pour ñuy tok nelawal nit ñi défendre idée yo xamni c'est faux. Parce que là, comme toi, tu nous mousse, nous mousse, nous mousse. Parce qu'ils sont payés pour ça. Parce que l'histoire euh, en sciences politiques des phénomènes de régulation sociale, ils sont pour nous Parce que 70% des, personnes, fou sont nek jang jang xam du jang ñak jang école analphabète lay nek du ils savent ni lire l'anglais ni le français ni l'arabe amul ben langue bu ñu mën comprendre dara day ñew barati na leen lak leen tubaab nangam sangam tek tak cravate sop dara du fekkon cravate 4-4 mooy développé Sénégal Sénégal développé bi parce que sous région bi ñoo 4-4 ñoo fi ëpp gars yi sol costume ñoo plateau télé mais amul dara lu tax dañu war taxaw seetlu taxaw seetlu mooy il faut une reconversion mentale qu'est-ce qu'on a parce que politique il faut une anthropologie politique anthropologie politique c'est l'origine de la marche des hommes comme mel Lévi-Strauss daf ci bind lu bare bare lire Jacques Attali l'homme nomade da lay le processus de la de la marche de l'homme nit fan la jaar ba yegg si fi mu yegg mais ñun amul taxaw seetlu day wax ni way Macky Sall élection yi dafa ñëw daf ko lu mbuxum mais amul kenn kuy taxaw seetlu doo dégg université ay ay politologue yoo xam ne taxaw ci rajo di wax pour am promotion ay ñu invité ñu ku nekk da ngay ñëw pour am promotion c'est-à-dire que on est dans un pays boo xam ni euh, y que le mirage qui paye day naxee ngay def toog ñu fay la nga am sa 4x4 toog dafa mel ne c'est une fin en soi mais am na pays yoo xam ne da ngay dem Autriche le chancelier di dawal 4 4 France le président de la République di dawal 4x4 Safran lay dawal te ñoom ñoo ñuy aidé ñoo ñuy dimbali pourquoi Sénégal loolu fi un politicien comme li tu m'as dit une chose tu m'as dit que ni pourquoi yëngaluma politicien? parce que da ngay dem wut tu as am mais tu ngay amee xaalis parce que en politique y a deux choses il y a la notion de parrainage c'est les lobbies lobby il y a ngay xeex de lay xeex hôpital Saint-Louis il faut qu'on l'audite auditer que moi, il faut commencer par le commencement Moi, le ministre bi nga le ministre de la santé bi nga xam ne nommé directeur hôpital parce que hôpital on l'a réformé avec la réforme de Ousmane Ngom. je crois que dans ñaan sama gars yi bu ngeen may minutes mu terminer l'hôpital après réformer l'hôpital il faut il faut il faut évoquer la réforme de Ousmane qui s'est passée je pense dans les années 96 ou 98 des choses comme ça quand il est ministre de la santé c'est les initiatives de Bamako. hôpital état quelques personnes l'ont fait. Ici, c'est ce qu'on appelle la fonction publique locale hôpital moyen de faille. mais d'accord moyen de faire. mais du fait fekkee est en train entrée d'argent mais entrée d'argent Bobo, sou Amé, mais les la moitié mën nga fonctionnement la moitié nga def ko ci dans l'investissement des matériels mais amul investissement des matériels hôpital maa lay wax keroog ne am na sax dama na ba créé fa auberge ci kaw. auberge wax auberge pour lan la. nee pour nee pour seen seen docteur su ñëwee amul fu mu dal ñu yóbbu leen fa waxin la mais nan nan wax sax nan wax euh, ils auraient pu créer un autre concept un autre mot. Oui, c'est la, euh, la maison d'hôte des autres. Maison d'hôte, oui. Créer un que. Mais quand tu es nul, il y a un problème d'expression pour dérouler. Moi, dans l'hôpital, l'hôpital, les élus municipaux là, ils ne sont pas Il fallait faire gratuitement. Mais là, le monde n'est pas. Moi, je ne porter plainte. Que ce soit les conseils départementaux mhm. et les conseils municipaux, il fallait faire avec cette famille. Moi, je ne sais pas. Mais cher, tu as fait. Mais cher, tu as fait.

duñu pourquoi duñu mais mais y a aussi ay retraites yu ñu jëlaat dafa temporaire. mais parce que la loi sur les côtes locales dafa nekk en moom l'acte 3 Macky Sall tant que mu ciy jógee du ko créé du ko c'est là où sont les pièges parce que nous avons des politiciens politiciens ils sont pas plus politiciens yi nekk opposants à nga gis nii. Mhm. ils vont jamais ils vont rien régler ils sont opposants le jour la nuit ils règlent le problème. mais il ngi a si cas opposition ba pare di leen dal. mais y a les politiciens y a les politiciens y a les politistes moi je suis un politiste je crois que temps bi tey xëy ñu lu bëree bëri bëri tey sa dernier mot tey jii nii la nga ñuy mais sama dernier mot mooy dama kontaan gis ay jeunes yu mel ne yéen am ay initiative day metti nag taxaw mais ngeen taxaw temm di pour ta sécurité pour notre sécurité ngeen di xeex di dénoncer c'est c'est pas un lanceur d'alerte dafa graaw de grave. graaw dafa graaw mais dans le temps ça va payer pourquoi ça va payer Dans le temps, ba nga xam daa bokk ci histoire u Ndar et c'est là où l'important soo demee ban lay wax ni la c'est là où est important mais le malheur c'est que dañuy gens, ba nga témoignages alors que bi ngay bi ngay c'est là où le président Lamine il disait dans son il a écrit un seul livre qui s'appelle Itinéraire africain il dit que Saint-Louis c'est la ville des deux extrémités tu vois des gens très bien et tu vois des gens trop mauvais parce que jarul len dara soko xamé ma dellusiwaat la ci David Diop David Diop coup de il a dit que le Sénégalais c'est quelqu'un qui se tait quand il doit crier et qui crie quand il doit se taire Il a dit que li ñu war toog di damyee toog di wax lu seen yoon nekkul ñu toogoon am conscience citoyenne ay mouvement citoyen yoo xam ne day taxaw ne un du fi am état contre pouvoir la diplomatie li diplomatie li muy rëy yëpp lan moo ko les rapports de force rapport de force loolu mooy état mais su fekkee ay con ñoo nekk ci parti yi ay dof yoo xam ñuy sol seen costume yam fii ñuy dem euh, kii way ay xama mais parce que politique euh, gis nga yére yére sol ko sol ko du mbubb dafa mel ne dina islam bi ciy am ak li nga ciy am ak xel mi ngi ciy am moo solo lool moo tax politique da nga benn booy bu nu namee dara mu dem jënd ay costume ba mu seeree sol toog ci 4 x bi di incarné yoo xam dara taxawul dam jënd benn téléphone lastique yi iPhone mais yaa ma gën ne xam li xew ci dëkk bi mais conscience yi parce que on a raté Sénégal dana raté ñaari rendez-vous yoo xam ne moo nu soppeeku mooy 2000. 2000 Abdoulaye ñëw Abdoulaye mom anarchiste alternance bi waaw. ah alternance Abdoulaye moom gemul gemul gëmul état. anarchiste le mom mom limu gem moy euh, la rapport économique input output loo indil qu'est-ce que j'en gagne yo la loolu la gëmoon moo yàq réew mi ci jikko yi mais amna lumu lu defar parce que war Sénégalais ni on peut rêver amna lumu def mais ki dafa ñëw incarné ñaari idéologie Abdou Diouf Abdou Diouf xamni c'est pas un exemple Abdou Diouf c'est pas un exemple parce que pays bi su yàggee tardé PS la ñun ci leen bok parce que leen gëmul état ay théorie Macky Sall dafa ñëw incarné Abdou Diouf ci tek tekaram <laughs> après incarné gangster Ablaye Wade ci mën dóoram si jël ma la ce qui fait que ni tay mooy unku say say bi gaay yi wax ah du ci yegg parce que li am solo moy li am solo moy li am solo moy ça dit que lool da kay da kay da kay der parce que xam nga tu m'as dit que ni pour comment un socialiste peut aller vers un libéraliste si mën na nekk soo jëlee ci mais Macky Sall il est otage d'un système moy xoola transhumance yi nga gis ni nga yakane dañ ci mucc moy Idrissa Seck moy ñeneen ñi ay ñu Omar Sarr c'est pas des cons nous l'un va tuer l'autre mais c'est le pays qui va en pâtir c'est ça le malheur Euh, je crois que tey kontaante lañ am si dalal ki nga xamante ni muy euh, Baba Ababacar Gueye euh, nekk consultant politique tey waxtaan nañ lu bëri lu nga xamante ni ci wàllum développement la ak ci wàllum li nga xamante ni mooy maire Saint-Louis ak hôpital je crois que sunu daje bi danañ ko. remixat parce que li ñu wara wax euh je crois que bëri parce que expérience bi nga am tay ci côté politique ak ci Saint-Louis euh, je crois que je yu melni ni ñun ak ñu melni ni ñeneen dañu soxla euh, tay ji ni ay kàddu yo xamantene day jugé ci yow du ñëw. xam nga Mitterrand dafa jàngale bu di politique ñet la soo amee judd mooy légitime sociale soo amee judd doo nekk di wut ay ay ñu lay wayal ay géwal di wax ni oh, non non non non di créer ay ay tour non moom la Mitterrand di wax la liste, la liste sociale moy judd la liste intellectuelle da ngay jàng au minimum nga jang xam li ngay wax maîtriser ko ak la liste financière plus tard parce que liste financière yi après gars yi suñ day ñëw après parce que gars yi ñooy miser ci yow comme États-Unis miser ci canada yi den ki yoy moo manqué sen parce que Sénégal booy dañu delu gannaaw depuis le 60 ans en tout sur tout day nax suñu bop ne di wax ni way on est les plus civilisés mais yow man dama jox ben exception rek bu graw eh, ben affaire rek uh-huh. benn incohérence Sénégal mais nan leen laajee président kaf té ñun mosuñu gagné dara ah ay lobby Tourian yoo xam ne ñoo yor football depuis trente ans di lekk suñu morning ah, di lekk suñu ay ay ay morning ñu jógee mondial 2002 ay nit dóor suñu matt suñu xaalis ah ñu tëj leen kase ah ay ñeneen Tourian nekk ci ñoo xam man boo juddoo ba ñoom laay gis affaire ñu lay gëmloo ni way dina baax dina baax je crois que moom balaa muy baax dana yàgg ak jikko yi bu ñu fekkee moom lañu ñu continuer di doxalee ci Sénégal di leen jox dig daje ci beneen numéro focus sur ak yeneen candidat yoo xam te ni. man man dama gëmatul politique parce que politique dafa xewi man je suis activiste comme yéen. <laughs> je crois que tey jii nii loolu lañ doon indi tey loolu lañ doon indil tey ci focus sur muy Ababacar Gueye bi nga xamante ni moom lañ doon dajeel ah, waaw di am kontaante bu wér xam naa di leen jox dig daje ak euh, yeneen numéro focus sur sur Saint-Louis TV di jaajëfal ñëpp jaa ngeen jëf. We'll be right back.